Sëriñ Tuubaa ndax ñun nag ay murit la. waaw. maa ngi sant ñëpp di gërëm. léegi du ko du ko teg gërëm la yemul fenn militant yi ak militant yi. waaye seen yitte ñëw fii te lay ñëw fii. sama nuyoo ak sama gërëm. dama koy àndal ci Sëriñ Muntaxa présenté Bassirou di ñaan waaye may remercier ñi xam ne dama ànd ak ñoom fii ci Touba ak Mbacke te jëluñu parole waxuñu ndax ñëpp mënuñu wax ñooñu laay njëkk a di leen sant di leen remercier di leen wax gis naa ñëpp gis naa leen yéen dañoo tubaab dafa ne à tout seigneur li jotee jotaay bi yaatu yëpp kilifa yi mooy Serigne Abdou Mbacké maire. de Mbacké mu teew fii jëmbal bés bi mu doon na koo bañ a def mu waaye bàyyi na yi teel ñëw taxaw fii jël fi kàddu wax fi wax ju rafet ko ciy gërëm te monsieur ni li nga def teraanga la waaye man ku ma lebal teraanga ma fay la te day xam lu baax li mu la wax te jotaay bii boo gisee war ngaa xam ni mu ma bëggee dara ci mbàkk yi dinaa te bés ngeen ñëw li ma xam nga bu baax nga danaa nga boo walalee dañoo koy fay ku jëf ak ku jëful mënuñoo yem